Eh, yegg si nga biir ndar magal far eh, dañuy teral gan du tàkku. jaay nag sa daje baax. waaw surtout booy jaay lu nuy lekk. mi ngi noonu <laughs> xam nga dama ànd ak boisson bu réew mi yëpp bëgg. a la ndaw si jaaragul tey. ah kii. Ah. bu ñànk waaw. bu ah, ah. ñëwee ma woo ko. waaw ma waaw. waaye nag yow kooku dafa baax. waaw wallaahi. femme bi. dama xamul noonu mu gis si ndax xale bi rek. yow nag xam nga sama waay. waaw yow. yow sama nit nga sama doomu na. loolu moom dëgg la jàppal ma ci xale bi. wa bu ah. ñëwee rek woo ma. ma pet petal waaw. ma woo bu ñëw mënatuma nelaw ndax li ma tëgg ndaw bi